moo xamante ni mu am solo la euh, président de la république Bassirou Diomaye Faye euh, daje invité woon ko nit ñi muy initiative boo xamante ni waxoon na ko depuis le 2 avril ñu am ci yaakaar bu rëy nag jàpp ne mbir yi mën naa soppeeku ndax gis nañ yéeneem gis nañ tam taxawaayam ak yitte ji nga xamante ni moom la am dajale fii tey jii ci CICAD daanaka réew mi yëpp la fi dajale tey. dañ ko doon xaar ndax ñëpp a sonn bi la justice bi laal ci réew mi. man gis ngeen euh, man mii sax bi ma nekkee candidate ak samay moroom dañu gisoon ni justice bi daf ñu laal mais waxuma loolu rek sax mais justice bi dafa metti gis nga ku mel na man temps yi pour ma nelaw guddi day jafe deux heures du matin sama xel dafa naan jar ci ñi nekk ci prison yi xoolal nañ leen di tëntale. donc réforme bi ñu ngi koy xaare fondamentalement ci condition ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe justice du rek les magistrats avocats yi ci lañ mbokk huissier ci lañ bokk greffier ci lañ bokk agent de l'administration ñi nga xam ne ñooy accompagner même les magistrats les greffiers également ñoom tam ci lañ bokk. et coppite bi am solo mooy yoon ñu ban koo jëlati di ko xeexeb ci wàllu politique def naa ne loolu la nit ñi bëgg mu soppeeku. bokk ak yeneen yi ndax ni ma leen ko waxee ki ubbi assise yi muy président Bassirou Diomaye Faye moom ancien détenu politique la kon euh, defe naa ne li tax mu woote lii mooy pour coppite am parce que moom euh, kenn du ko nettali